alhamdulillahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baada nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walaahum wa man tabiu bi ihsaani ila yawmi diin mbokki ñu bokkal borom bi tabaraka wa taala ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmmi yàlla ak barkeem yërmandeem ak xéwalaam suturaam yàlla na ko borom bi tabaraka wa taala wàccee seen kaw te wàccee ko seen kaw njaboot tabaarakallaahu yéen a ngi ànd ak seen mbokk Abdoulaye njaay fii ci MTV senegal émission bi muy am ak yéen ay waxtu jot fa tabaarakallaahu ñëw nañ di leen ko defal si di ko tuddee macha allah li ci réew mi ndax li ci réew mi mënuñoo weesu waxtaanee li ci réew mi ndax fii la xewee te fii lañu koy waxtaanee. ci jamono ju ne ci saa su ne ci waxtu wu ne ñu mën a am lu ñu mën a jël teg ko ci taabul gi mën koo waxtaane ndaxit dañuy wax naan wan ma rek say ndawu réew ma wax la sa ëllëgu réew li tax ñu wax loolu mooy ko dafa am solo lool ci doomi aadama waaye nag bu ñu naree dem ba bëgga jaay sunu ngor yàq sunu jikko fa tabaarakallaahu dañuy xam ne ni kat fii ñu teg sunu tànk baaxul ndax ñu nag bàyyi mayi kat li ñuy wutale mooy xel waaye nag bu ñu naree dem ba yam ak ñoom fa tabaarakallaahu boobaa bàyyi may dañuy gën mbokk yi li ñu bëgg a waxtaane ak yéen tey képp ku am xel tey xelu rek di gis tey li xew ci réew mi ci bëgg a siiw ci bëgg daraja day tax nit fa tabaarakallaahu di dem bay def loo xamante ni ni moom du xool ndax la muy def jaadu na wala jaaduwul baax na wala baaxul du xool yan conséquence moo ko ci fekk ëllëg waaye nag dañuy wax ne moom na ko def rek ngir am bës mbokk yi loolu la ñuy gis tey ci sunu série yi sunu téléfilm yi ñuy tegal tey mooy senegaal bu njëkk ba fa tabaarakallaahu théâtre la ñu doon indil ñi di la ko tegal nga di ko seetaan ñi lay jàngal nit walla jur ak doom naka lañu ñu war a doxalee ci biir kër daan la jamono jooju mën nga ne daan nañ jàngale ay jukko yoo xamante ni yow mi ko daan seetaan daan nga ci jëlee njariñ waaye léegi nag jamono ji ñu toll boo seetaanee suñu téléfilm yi yow contraire sax da ngay rus waaw ndax li lay njëkk rusloo mooy dangay gis ni ñun ak tubaab yi amuñu lenn lu ñu wuutale ci ni ñuy doxalee suñu téléfilm lu dul der bi ñu yàlla sedd mbokk yi ku ne gis na série boobu di daw seen TV ñu koy tuddee infidèle mu nekk série série boo xamante ne wax dëgg yàlla képp ku bëgg lu baax tey bañ lu bon rek di nga naqarlu fa tabaarakallaahu li ñuy gis li nga xamante ne moom mooy daw ci série yooyu mbokk yi gis nga jigéen dafa am loo xamante ne moo ko jikk moom jigéen bu dee pare na pour doon jigéen ndax gis nga kersa wallahi bu dañee ci nit rek lu la neex defal ndax xam nga bu ñu demee ba jigéen ñi lay yombalal ne la ak góor ci sa dund di la jàngal ni waaw mën nañoo dem ba jamono joo xam ne ne amul benn problème mbiru sexe moom nu la neex nga koy dundee am nga droit dundee ko nu la neex dagan naam daganut yow daal yaa moom sa vie yaa moom sa dund mbokk yi ay mbir la yoo xamante ni képp ko seetaan séri boobu point yi baari mën nga ko waxtaanee waaye nag ci côté bi ñu bëgg a jël rek ci côté yi ñu bëgg a jël ku ne xam na ni boo seetaanee ndaw soosu nekk ak boroom këram waaye nekk ak rakkam ci biir kër gi la hawla wala quwwata illa billah ñuy jàngale ni yow sa rakk mën na nopp sa boroom kër waaye nag bu mu xool deret bi ngeen bokk wala ngor bi ngeen bokk moom daal na xool li nga xamante ne moom mooy sentiment waaye damay wax ni jamono jooju ngay seetaan film bi waa jooju nga xamante ni fa tabaarakallaahu moom mooy euh, denc ndaw soosu si nekk ak rakkam ci biir kër gi dama ne kooku dafa xas jigéen li mu xasee jigéen mooy lan jàngale nañu euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, soxnaam dem na tukki bàyyi kook foofu ak rakkam ba mu ko bàyyi ak rakkam ñoom ñaar ñu wit ci kër gi la hawla wala quwwata illa billah dem nañu ñoom ñaar ba séq la ñuy séq ba nu séqee la ñuy séq dafa toog di ko xas waaw nan ko yéen ñëpp a yam ndeketey sa kii bi yëpp yow doo jàng subhanallah mu nekk ay mbir rus ruslu yoo xamante ne ni képp koo xamante ni fa tabaarakallaahu am na looy jomm rek wala am na ngor gu ne ci yow rek loolu war nga koo naqarlu mbokk yi beneen bi mooy ndaw soosu ànd ak waajooju ci bitig ba fekk ji faram ñu la dañoo kompuloo li ki nga xamante ne moom mooy waaj comme waa ji dem na jëndili ko ay yére valeur u quatre cent mille jàpp cinq cent mille léegi nag problème am mooy comme defal na li muy defal ndaw si ba pare dina jéem a teg plan yóbbu ko otel wala auberge siq ak moom ndaw si xam ne moom it am na lu kii nar ak moom ñi dem ba ci ci yoon bi mu jékki-jékki wañaaru ne biiram day metti waaw mu ne biiram nday metti la xawla wala quwwata illa mu ne waa ji nii la may faral di def su may waa ji gis mbaax sama biir day métti doo ma wan doo ma may li nga musuwaar mbokk yi képp ku seetaan loolu rek sa xol bi war na jeex ndaw si jël moo ngi sol lu gàtt waaye mu jël li nga xam ne mooy musuwaar googu nee na ci kanamam la ko la ko dugal génne li nga xamante ne moom mooy allahu akbar deret waaw li nga xamante ne moom mooy deret mbokk yi mu nekk lu ñaaw lu salte wane ni moom dafa gis baax a la wala quwwata illa billah te mu nekk ay mbir yoo xamante ne ni ñoo ñu koy jàngal di ñu ko wan waaye nag mu nekk loo xamante ni ni képp koo xamante ne ni wax dëgg yàlla mbaax yitteel na la rek war nga war nga jug xeex li nga xam ne mooy jikko yi ñaaw yi ñu bëgg a tasaare ci li nga xam ne mooy pénc mi beneen gi ju topp mooy ñu jàngal ne la yow sa boroom kër daal mag la comme mag la yu bëri mënu mënu mënulu koo satisfaire am nga droit nga dem ci li nga xamante ne moom mooy saali yi gars yi di entraîner nga mën faa fekk ñu ñuy tuddee li nga xamante ne moom mooy zigolo ànd ak moom ndax lan sa boroom kër lam la mënal mënalatu ko léegi nag. la mànk ci sa borom kër ci geneen góor nga koy mottali ji la xawla wala quwwata illa billah mbokk yi te li ci gën a naqarlu ñi koy géey boo leen laajoon li ñuy géey lan moo tax ñi di ko géey dañ naan la parce que dafa dafa xew ci réew mi la xawla wala quwwata illa billah dañ koy dund yow mi dugg sa biir sa sa biir wanag di sangu futteeku di sangu pourtant loolu danga koy dund ndax di nga ko filmer sa bopp wane ko ci ci ci télé yi ne lii li ñuy dund la tontu li mooy déedéet gis nga kii wét ci rukkam sax di def baakaaram def na ko sudul noonu kooku suturaal na boppam waaye yow mi nga xamante ni yaa ko jël ne fang dàng ci li nga xamante ne moom mooy réseaux sociaux yi wala ci tele yi ana lan la lay jural amul lenn loo xam ne dala koy jural te baakaar bi nga xam ne ne ki wéet sax def na ko ba ci ki njaaloo nga xam ne wéet na sax njaaloo def la muy def kooku l'islam balaa ma koo sanctionné ñi am preuve dafa am preuve yoo xam ne ne faw mu daje ba pare ñu doon ko sanctionné ci pénc yàlla moo njëkk a bëgg sutural li nga xamante ne moom mooy doomi aadama ba mu jaarale ko fa mu ko jaarale mais tey bëgg daraja wala bëgg bës wala bëgg siiw mooy tax ñi ci bëri dugg ci la ñuy dugg wallaahi summa wallaahi képp kuy bàyyi xel ni bis dina ñëw nga tëroo li nga xamante ne mooy sa ndeyjoor bii ñu waqi bàmmeel ba mu xóot dugal dugal la ci mun kii rek naqiir ñëw di la audité kenn du la fa fekk boobaa war ngaa xam ne ni wallaahi yàlla rek yàlla yéen ñi nga xamante ni ni yéen a ngi géelu mel noonu muy góor muy jigéen na ngeen fàttaliki ngeen xalaat ni bu leen topp ci bu leen topp seen ndaw rek yaakaar ni ndaw googu bis du ñëw mu ràpp wallahi mag a ngi ñëw te bis bu leen mag ganesee di ngeen xam ne ni fa tabaarakallaahu lépp lu la yomb nga def ko bis dina ñëw nga rëccu ko lépp lu yomb nga def ko bis dina ñëw nga rëccu ko tey ci lu mel noonu la ñuy dund kon nag li leen di dénk conseil leen mooy jigéen mooy àddina bu leen nangu mukk ci cent mille wala deux cent mille bu doon un million un milliard dara da koo jarul ngay futti sab yaram di xaawee ko li nga xamante ni fa tabaarakallaahu moom mooy ci kanamu écran yi ndax ndaw soosu noonu nga gis ni euh, fa tabaarakallaahu jëkkëram bi moo doon tëddee rakkam moom ba mu àndee ki nga xamante ni mooy borom këram ci filme boobu ñi dem ca place ba xoolal xoolal ba mu koy fob lu gàttalom sol daanaka njiit laayam yëpp ngi ci ñoo ngi ci biti te moom nee na am na am na jot naa am ay doom tey ñooñu ay doomam bu ñu demee bay màgg seen morom di leen ko xoolee naan leen seen yaay lañ yëkkati woon njillaayam di feeñ ndax loolu rafet na kon lépp lu ngeen def na ngeen ci sóoraali seen i doom tey na ragal yàlla te xam ne bis dina ñëw ci bés yi yàlla dina wéetoog ñun di ñu laaj ba ñu yaakaar ñun dong la bind ci jaam kon àdduna du loolu yomb rek nga def ko kon ngeen fexe ngalawaay lépp lu ngeen def ngeen sédd ci yàlla lii may def bu ma ci xool intérêt bi ma ci am rek war ngir yóbbu sama njaboot lii may def mu ci xool rek siiw bu ma ciy siiw ngir am bës waaye na nga xool appare jeexantal bi ci ginnaaw say doom bu ñëwee naka la ñuy dund ci société bi. bu la tóoroo nga xam ne yàlla rek kay yàlla kon nag lii lañ leen andiloon ci li nga xamante ne mooy li ci réew mi li ñu ci jublu rek mooy ñi jéem cee bàyyi xel mais rawatina way juri ña xam fu ñuy jaarale seen doom bu baax a baax ndax jamono ji képp ku yor xel tey xelu war ngaa ragal ci liy xew fa tabaarakallaahu lépp lu jub rek ci yàlla la li ci dëng ci ñu la suñu matadi la di leen wax ni nag fa tabaarakallaahu fii dong lay amee fii lay xewee woy leen di abonné fa tabaarakallaahu ci suñu siti mën a am ci suñu vidéo yi ten te nag dee leen partagé fa tabaarakallaahu bu ko kenn wuute salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.